salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy Pikine Aynou Mane ci lu soxla open press bi nga xamante ne Youssou mi ngi koy amal Youssou Ndour bi école nekk doomu mbër nekk itam ki nga xamante mooy doomu Balla Gaye numéro am combat capital le dimanche 23 mars incha allah moo 24 mars incha allah moo ko bëre ki nga xamante mooy Boy Seye numéro 2 mbokki loolu moo ñu fa andi ci a plonge ci événement alalu aide bi alalu aide bi bagage su aide bi. am na mos.

Dafa de ñu mel ni ñoom Thiatou Walo ñoom fils de Balla tous maa ngi noonu Youssou ngi noonu le fils de Balla Gaye numéro un combat capital dimanche 24 mars diggante ak Boy Seye numéro 2 mbokk yi xale baa ngi noonu. ndeysaan maa seen ku mel ñoom gàkku de ñoom fils de Balla tous maa ngi noonu xale baa ngi noonu. boo xool xar bi macha allah liggéey na Wow ngi forme waaw waaw pis maa ndeysaan daan doom Balla Gaye ngi noonu ànd ak ñoom Thiatou Walo ñoom Sa Thiès numéro 2 ñoom Boy Niang fekkoon groupe Balla Gaye ñoom Gàkku numéro ndeysaan tous maa ngi noonu ñu doon tous bés tàq Mor Ka Ani dimanche 24 mars incha allah diggante ba Boy Seye numéro 2 vidéo Sadio mi Mar Diop le jeune champion de l'école du livre Balla Gaye qui est en train d'effectuer sa chorégraphie en pleine ambiance mais aussi en communion avec ses supporters et ses fans Bécaye Youssou Ndour mi ngi noonu xanaa mi ngi noonu xale école du livre Balla Gaye baa ngi noonu non lu ko wax lu mu doon doon jàmbaar gënu mu doon jàmbaar ndax ku seetaan samay combat seetaan ay combat am xam ne bokk lu ma ko wax rek waaw man moom kooku amul leen loo xam ne dinaa ko wax jour moo ñu boole ay ndaw ma jàpp ko daan ko bu neexee suñu borom waaw. mais est ce que xam nga ni koo xamante ne du bàyyi. waaw man tamit du ma bàyyi aussi tamit noonu ma du ma bàyyi. du ma bàyyi waaw ndax man xale laa ko maa ko gën nekk sa xale maa gën a féete xale ndax man lamb laa ko fekk moom la moom mag la. te su ma ko jàppee ni xam lépp dëgg la. sa morom ngay bëreel de boo jàppee sa xel ni mag ngay bëreel bu jour ba da nga am lu la métti de xale bu ndaw ngay bëreel comme sa morom. déggoo lu ma la barki alxuraan bu bëree ma daan ko mu xeex ma duma ko mu daanu. moom yow xeex la lay àndal nee na fasul a jàppante ak yow xeex lay samp jaag. waaw waaw. tamit loolu. loolu nga xam xaman day neexal laam ji rek man ku ma xam-xam ni man damay xeex di bëre te kooku du ma xeex moom. kooku du ma xeexam dama koy duma daan ko. dafa duggoon sa écurie de kii sa ginnaaw la fa mujjee bëre loolu. mënu ci dara kii daa feebaroon ba muy bëre moom. deful dara ba muy bëre Aïs dafa feebaroon mais kooku Aïs bu doon ne la mun ko bëtt. waaw. yi nga ñàkk bari doo ko teg ci yoon yu baree bari doo ko teg ci yoon est yaa ngi sóoraale combat yooyu noonu. waaw yooyu dama waroon ñàkk rek ñàkk moo tax ma ñàkk ko mais bokkut bii bi ma jëm bii dama waaw di wax sama waa koñ maa ngi leen jégalu bu baax a baax a baax. su xeexee su ñëwee ne day xeex samp jaag. su xeexee waaw dama koy duma. toppale di discours di discours est-ce que nekkul loolu mooy tontu bi rek. gëm nga ni bu xeexee nga duma. man lamb man nekkul doo xam dama koy wax lamb jama c'est son preuve. yéen ay yéen yéen ay reporté lamb mos ngeen gis sama combat ma taxaw. te ma jagaar damay xeex. loolu moom kenn waxatu ko. waaw. bàyyi bàyyi la lu mu la wax. papa lu mu la wax mooy doomu gor nga rek te doomu gor gor day ñeme njab jam waaw. moo damay ñeme jam-jam. waxu la nga moytu dara. amul lu may moytuloo. côté mobilisation bi ndax promoteur bu ndaw moo leen tëgg. kon soxla na ngeen mobiliser fan nga la ci côté mobilisation. waaw comme li ma wax léegi léegi rek di woo sa waa koñ Modou Gueye bu lam la waa Lamsaar yëpp Modou Gueye maa ngi koy woo bu baax. waaw ndax moom mooy suñu lépp maire Awa Ndiaye suñu imaamu koñ maa ngi leen sant bu baax a baax a baax. Pape Faye sama mbokku laayeen ñoom ñëpp maa leen